ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir mi wala si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production a xam ne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 fekk et frère yi rekk la amul fenn ci fàttalante yenn gàllankoor yi nga xam ni ñu ngi gàllankoor société bi ci njaboot gi mën a yaru wala ñu teg ko ci yoon ñu ngi woon ci passé yi am ci réew mi te saa bu amee njaboot gi tàqalikoo du ñu am repère maanaam du ñu am wéeruwaay du ñu am royuwaay doom bu fekkee ne nekkul ak ay waajuram fan lay xamee ñaari way dencante nan lañu war a nekkee fu mu koy xame doom bu nekkee nekkul ak ay waajuram fan lay xamee responsabilité fan lay xamee li war góor ci këram fan lay xamee àqi boroom kër ci këram fan la koy jàngee kon loola lañ cay dégge mooy lu mat a bàyyi xel la te pourcentage boobu mi ngi bari ci njaboot gi léegi danañ dem ba bari lool ci kanam boo xoolee pourcentage u divorce yi am ak séddoo njaboot gi kon bu ay jafe-jafe amee ci sëy yi ngir àq njaboot googa ñu mën koo sàmm nañ xool loola ngal la ba lu ñu mën a daw ca pase ga ñu daw ko ndax bokk na ci liy indi loolu donte léeg-léeg du mën a ñàkk waaye bokk na ci liy indi société boo xam ne si duñu am ay repères te loolu lu mat bàyyi xel la doom day yaroo ci keppaaru ay waajuram ñu nekk ay royuwaayam waaye ku ne xam na ne xale bu ndaw ñu ne bàyyi nañ koog yaayam par weekend nay seeti papaam papaam am na droit ñëw seet si ko benn yoon ci semaine bi wala benn yoon ci weer wi du mës a xam lan mooy ay wartéefam ci kër su màggee bari bariwaane société yu yàqu loolu moo ko yàq tey société occidentaux yi bu ngeen gisee mu mel nii mu mel mooy dañoo réussir ci lépp walla ci lu bari ba mu des ab yar ak yar njaboot dañoo réussir ci lu baree bari ci industrie réussir lu baree bari ci alal échoué ci forme nit ak yar ak njaboot mooy tax la fay xew di fa xew yépp ñuy gis phénomène yi am yëpp ci ñoom di gis genre yi am ci ñoom yëpp loolu moo ko indi njaboot gu ñàkk repère njaboot gu màgg fekkuñu seeni waajur nekk ñoom ñaar du ñu am repère duñu xam jikko yi kan lañu war a jël kon loolu ñun nañ ko moytu rawatina société boo xam ne sii dañuy woote ne ay jullit lañ li ñu islaam digal mooy nañuy jël suñu responsabilité suñu doom su ma day wax ci sootul anam laa taqtulu awlaadakum min imlaaqin nahnu narzuqukum wa iyyaahum bu leen rey seen njaboot ndax ragal ak ñàkk ci beneen contexte li mu bëgg a wax foofu mooy ñun ñoo yor seeni wërsëg mooy nit ki bu mu investir ci doomam yaakaar ci wërsëg kese wala su ma ko tegul ci yoon wi ëllëg du am dara wala su ma ko tegul ci yoon wi ëllëg duma jariñ kenn lu yaree noonu doom doom danga koy yar ci diine ci digal lu baax danga nga xam ni wërsëgam suñ borom moo ko yor amul kenn koo xam ne sii toog nga fii ci barab bi tey li nga nekk wala li nga am ci yoon woowu lañ tegoon amul kenn koo xam ne si tey sa waajur yaakaaroon na ne di nga am lii nga am tey kum mën a doon kon loola nit lu mu gàtt gàtt xel war na caa xamee ne suñ borom moo yor wërsëgu doomu aadama kon li ñu warloog doom yi mooy yar leen képp ci diine yar leen ci lu baax ndaxte bu ñu leen bàyyee seen bopp comme ni ñu ko waxee léegi dañuy accroché wu ci ay réseaux sociaux lañ fay gis ci ay digle lañ fay gis ci ay tere dañuy jàpp ne loolu mooy lu baax groupe yañ fa nekk nañuy yaree ak proverbe yañ fay dégg dañuy jàpp ne loola mooy lu baax te loola doyul ci ab yar ku ne xam na ni beneen inconvénient bi muy indi mooy jafe-jafe. bu ñu leen bàyyi réseaux sociaux yi lan lay indi dañuy dem ba duñu xam ak mbokk duñu xam ak way ay wayjur duñu xam àqi mbokk ñu xam àqi wayjur naam gis nañ groupe WhatsApp groupe Facebook ay nit di ca booloo di ca jàng di ca fiir ay tiire ay groupe famille di wàccee ay kaamil ci gu ci ci groupe bi di ci waxante lu baax am ñu ciy jàng loolu aspect bu positif la bu ñu war a soññi xale yi di leen ci tàggat ci réseaux sociaux yi xamal ne kon mën nañ ko exploiter ci côté boobu loola moo ca la ca baax ñu gis ci geneen wet gi mu yóbbee ñenn ñi gàttañlu waslu àq gàttañu ci mbokk da ngay am sa doomi baay boo xam ne yéen a bokk benn baay mu dëkk fii waaye donc comme que yaa ngi gis ay information muy publier ci Facebook bi wala ci WhatsApp bi rek loola doy na la dootoo ko seeti doo xam ak njabootam doo xam wér na doo xam jafe-jafe yu mu nekkee doo xam ni njabootam nekkee saa boo xëyee gis mu estati rek nga jàppale mi ngi ci jàmm te kon loolu doyut kon bu ñu leen bàyyee loolu lam ñuy yóbbee mooy day disloqué suñu njaboot gi tàqale famille yi tàqale mbokk gi tàqale kóllëre yi ñëpp dund ci monde bu virtuel boo xam ne feeg yaa ngi gis nit ki ci page am ci Facebook wala muy statut ci WhatsApp rek nga ne mi ngi ci jàmm ak lu ngeen mën a bokk te loolu ku ne xam ne doyut te ak jullit ak moroom ma dañoo war di seetante di nemmkante jafe-jafe yu mu am nga xam ko la nga nga def ko njaboot yi xamante doomu baay yi xamante di seetante di demlante di séq teraanga di séq lu baax noonu la mooy yarub lislaam loolu mooy yarub jullit waaye kon na nga xam ni réseau sociaux yi doyut ci ñu bàyyee ko njaboot gi mu leen di orienté ci loolu la leen di yóbbu bu fekkee ni bàyyee nañ leen ko xamuñu seeni orientation benn xamuñu seeni mbokk ñaar xamuñu lañu war a def ñett su boobaa ñun am nañ ci responsabilité bu rëy rëy kon bu jamono dox ba kenn jàpp jamono dalaa njett ba tax mënatul sa njaboot dara wala dara waratula ci ñoom ñu nekk ci réew moo xam ne it média bi li muy orienté néew na programme yi ñu ciy gis li muy yar néew na programme yi ci am njariñ mën a jubbanti ak njaboot néew na ay médias commerciaux lañ yor yoo xam ne li leen intéressé mooy ay faits divers di wax loo xam ne si buñ ko waxee nit ñi yéemu ba nit ñi jàpp loolu kese mooy àdduna wala looloo fi nekk ay téléfilm yoo xam ne si contenu bi intéressé wu leen scénario bi intéressé wu leen sponsor ya cee am képp leen ci intéressé ak lañ cay gañe kon nañuy orienté njaboot gi di leen xamal buñ ma amut seen jotit jamono ju ñu am lu ma xat-xat xat-xat ñu xamal leen loolu loolu mooy àq ji waajur am ci doomam ci yar waaye li indi loolu lépp mooy li ñu waxoon sànq bu fekkee ni sa doom da nga koo def source d'investissement naa ko dugal ci école bii ndax bu fa génnee dina nekk nangam kese moo la ci ñor lu ko waa école boobu digal loolu lay def fuñ ko orienté fa lay jëm luñ ko xoolloo fa lay xool seen télévision buñ ko forcé boobu lay xam su boobaa bokkatoo ci sa responsabilité génn na ca te doom ngir loolu dañ koy répété saa su ne yar képp nga mën a def ci moom mu am résultat kenn mënut ne sama doom li ma am dina ko am ci alal mayuñu ko kenn loolu suñ borom mayu ko kenn kenn mënut ne li ma am ci xam-xam sama doom dina sama njaboot dinañ am ci xam-xam kenn mënut loolu li nga man mooy yar naa ko ci diine xamal naa ko lu baax xamal naa ko lu dagan xamal naa ko lu araam xamal naa ko lu lew ba mu xam ko loolu dong lañ mën a assurer ci njaboot kon nañuy bàyyi xel loolu waxtaan wi lépp mooy àq ji nga xam ni way jur yi am nañ ko ci njaboot gi lu jamono xat xat xat xat nañ ci boole njaboot gi xam ne luñ gàll suñu kaw la seenub yar ci ñun la aju lañ ca man ñu def ko wala buñ leen di yarlu ñu teg leen ci loxo yoo xam ne sii xam nañ loxo yañ nekk ñu teg leen ci loxo yoo xam ne xam nañ loxo yañ nekk waaye jël jur rek am naa alal ma nga ca école sàngam wala mën naa fay ma nga ca daara sàngam doyut na nga xam borom daara ja na nga xam la muy jàngale na nga xam ay jikkoom nga doog ko jox ndax loolu mooy sa responsabilité kon wayjur wu ne na sàmm loolu yonent bi sallallahu alayhi wax na ko kenn ku nekk yomal xiyaam dañ la laaj la nga sàmmoon te kenn ku nekk àq ji nga am ci sa doom moo jiitu àq ji sa doom am ci yow muy góor muy jigéen xataayu jamono du lay jafe-jafe jamono du lay ut loo am du lay ci ñàkk yar sa njaboot ci diine te jamono ngi jëm foo xam ne ku yarul sa njaboot ci diine mën nga caa bañ a am lu neex ak lu mu mën a am ak lu mu mën a am nag ci xam-xam ak ci am-am loola ku ne gis ne exemple yi ku nekk dund na ko ci jamono ji kon loolu lu mat a bàyyi xel la gis ngeen Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu buñ ko masaana jox tu tànk la muy yittewoo ci moom mooy yar ba ak xam-xam ba li muy njëkk laaj ndax wattu na alxuraan buñ nee waaw mu boole ko ku ko yar buñ nee déedéet mu boole ko ku ko jàngal sëñ Modou Lamine Diop Dagana misaal la ci biñ koy jox sëñ bi kon loolu lañ cay déggee mooy kon ab yar moo ëpp solo lañ cay déggee mooy waajur wi yar kese mooy àq diggam ak xale bi ñu ko jox ak ku mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa gis nañ ne ñim daan yor ci ay xale lépp bu leen di ñaanal ak njub la leen di ñaanal ak xam-xam xale yi ñu ko mësaan a jox ñépp ay boromi xam-xam lañ ndax jàng la leen di def loo ak yar leen ndax loolu kese les man ci njaboot yooyu kon yu mat bàyyi xel la ci jamono ji ñu nekk toujours ci yar njaboot gi bokk na leen tamit yar leen ci économie yar leen ci yaxanal yar leen ci nan lañ war a fàggoo alal ak bu ñu ko amee it fu ñu ko war a def loolu it ku nekk am nga responsabilité boobu ak àq googu ci sa njaboot da sax koo xam ne si saa bu xëyee doomam ne ko jox ma nangam ma jënd paas internet saa su ne mu cay yàq loo xam ne si xamoo sax ca lam koy doyee xamoo lam cay def xamoo lam cay xool waxuma yàq gi mu ci yàq waaye yàq alal gi nga koy jàngal rek responsabilité la war nga koo jàngal ne alal ci lu am njariñ kese lañ ko war a def alal du pour loisir alal du pour loo li ma bëgg a def rek naa ko ci def déedéet nanga ko jàngal muy def ci farata ba nopp nit ku nekk nag am na ay loisir nit ku nekk am na ay bëgg-bëgg waaye nanga nga ko jàngal def ci farata loola kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bari na ñoo xam ne si li ñuy ñàkk ci seen njaboot ci yu mel noonu kenn xamul nu toll ngir bëgg lu leen neex te loolu responsabilité wayjur wi la doom alal juñ la dénk la. ni ko wolof di waxee nawle joo xam ne loo def ci moom bu màggee dana ko xam bu lu baax bu dee nit du meree way jure mukk lu tax teguma ci yoon ma amee alal nit du meree way jure mukk lu tax defuma may borom xam-xam bu mag lenn képp la ko mën a wéree lu tax jàngalu ma woon ba ma tollee ci jàng mooy jàng rek lu tax yaruñu ma woon ci nàngam ji loolu les di mere wayjur te kon wayjur wu nekk war naa xalaat loolu war naa xalaat ni doomam yii buñ màggee lan laa def ci ñoom ci xam-xam lan laa def ci ñoom ci ab yar ku nekk mën na koo laaj sa bopp fi nga toog sama njaboot ñaata yoon laa toog ak ñoom ci semaine bi wax leen ci lu baax orienté leen xamal leen ci diine ku nekk mën naa natt loolu kon loolu moo nekkoon fàttalante yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo xam ne dugal xam li nga xam ne